mel ni Sénégal instant bi lépp doon yaakaar ci ñoom rek euh, daal nañ sagal mais Henri lan mooy sa réaction mbégte bi nga àndal tey. moom dama ànd ak mbég lii dafa xaw ma na laa ko mun waxee mais ay at ñu koy xaar. Mhm. ça cinq fois mooy dem Coupe d'Afrique chaque année Sénégal yi di ko xaar tey nag dafa jotoon tey yàlla dafa ànd ak ñun tey waxoon naa ni tey. par force coupe bi ñëw dama ko wax par force coupe bi dina ñëw te yàlla dimbali nañu coupe bi dina ñëw léegi nañu sant yàlla génn ci biti jubilé li moo taxoon bëgguma dem parce que daaw dama dem équipe bi perte mu ne ren damay toog ak sama famille seetaan ko coupe bi ñëw. mu mel ni ren tamit ku mel ni euh, nu mu El ñoo dem teewal la foofu yow nga resté fi. lu ñu mën di wax que Aliou moo jiite jiite xale yi. Mm-hmm. ñoom Lamine Diatta ñoom euh, Tony Silva ñëpp ñu ngi foofu donc ja gàcce ngaalaama 2002. Mm-hmm. lépp ñoom la. mu mel ni daal tey jour de fête la. tey jour de fête la tey amul nelaw. kii jalgati jalgati jalgati jalgati bàkku ko bàkku